kon mbokk incha allah ñi ngi war a jël suñu aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent ci suuratul qasas fi suñu borom di waxee ni falamma qada muusa al ajal alhamdulillah وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi sant suñu boroom ci bim ñu deppaleeg ñu daje ci ab téeréem ci benn néeg ci ay néegam fas yéene di ko jàng xéewal ya ca nekk bari lool ñu yàgg ko fàttalente ak yéen mboolem lu ca yàlla dige yal na yàlla jagleel ñu ko kon incha allah tey jii moom mooy ñaar fekkeelu fan ak juróom-ñaar ci weeru safar di tombeek la nga xam ni mooy le treize ci weeru wala 14 naam la 14 ci weeru octobre 2020 su dee ni incha allah Cheikh Ousmane pare na kon ñu jël suñu bind bu njëkk barakallahu fiikum su doonte ni lii rekk mooy tax ñu ñëw ci jàkka ji loole jaroon na ko ak fu ñu mën a jóge sahabatul kiram dañ daan ànd toog ci jataay ba mujj ñu ne taalaw nu'minu saa kaay leen ñu gëm ab waxtu diw jàngal alquran su ko defee mu yëkkati téere borom bi di jàng ñoom ñépp ñu sëgg seen xol yi di dund yéen ñépp dégg ngeen bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee sahaaba ya ba mujj mu ne ibn masud jógal jàngal quran waay mu ne nan laa la koy jàngale ci ci yow la ko yàlla wàcce mu ne ko waaw damay bëgg di ko déggee ci keneen ibn masud ubbi suratu nisa di jàng di jàng ba jàng ca lu jege ñeen fukki aaya te aaya ba suñu borom di wax naan ma yow yeneen ci bi nooy def su boo xamee ne xeet bu nekk daan ñu indil seede yow ñu indil la nga seede ci ñi mu ne ko xasbuk doy na ibn masud nee na ba ma siggee maa ngi fekk bët yaa nga taa ak rangooñi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon mi ngi noonu amma nag buñ ci dolli fortaatu ci lenn ci lu ñu xamul woon wala fàttaliku fi lenn ci lu ñu xamoon loolee day nekk nuurun ala nuur yal na yàlla boole ñu ko nangul kon suñu borom mu ne auzu billahi min asheytan rajim falamma qada muusa al ajal bañ demee ba muusa jooxe dég ba qada mooy lu ñu fay waaye lu bëri ci sharia mooy lu ñu jooxe borom bi mu ne fa ida qudiyati salaa fantashiru fi l ard firiwul ne ajjuma ja daa paase woon ñu koy fay waaye buñ ko jooxee ba pare kon Muusa jeexal ne dig ba mu diggante woon wa saara bi ahlihi mu daal di dem nag ànd ak njabootam ga aanasa min jaanibi tuuri naara noonu la seeni ca la nga xamee ni nii mooy ca wàllug montagne ba tuur mooy montagne bu am garab mu seen fa sawara qaala li ahlihim ko suu mu ne njabootam nga toog leen xaar ma fii inni anastu noora man day maa ngi nekk di seen la nga xam ne mooy sawara laali aatiyakum minha bi xabar man na am ma indil leen jëlil leen ca benn xibaar aw jazwatin min annoor wala benn jum jum mooy bant boo xam ne am na luy tàkk ca cat la jazwati min annar benn jum ci sawara laallakum tastaluun ngiree ngeen mën cee jaaru falamma ataaha bam dikkalee sawara sa nuudiya min shaati ilwaadi al ayman noonu lañ ko woowee ca catu xur wa féete ndeyjoor fi lbuqaati almubaraka ca place ba ñu barkeel ba min ashajara ñu woowee ko ca garab ga an ya muusa inni ana allahu rabbul alamin te mooy ay muusa man mi wax ak yow day may yàlla borom bindaa fani wa ana alqi asaak li ma li digal mooy sànnil sa yet wi falamma ra'aha tahtazu ka annaha jannun ba nga xamee ne gis na ko muy battar ñu ko di yëngatu mel ne jaan wala mu dibira mu daa di wëlbatiku doon koy wane gannaaw walam yu aqib nangoowula dëppati yaa muusa aqbil eey muusa jege sil ñëwal wala taxaf bul ragal innaka min al aminin bokk nga ci ñi nga xam ne dañoo am kóolute mi ngi noonu mbokk ñi ngi nii ci suñu ñetteelu daje xale yi gën koo miin ci ay épisode ci nettali bu ñu suñu boroom di nettali ci yonent yàlla muusa alayhi salaam wax nañu fam juddoo fam jaare ca pale firawna fam màgge ba rey fa doomu aadama dawe fa dem fale nga xam ne mooy madiyana ca jordani dem na fekk ne ay jigéen ña ngay root ca teen ba rootal na leen ñooñu dem nañ wax ko seen baay baay ba woolu ko gis ci moom jukko yu rafet gis ci moom diina ju rafet ca loolu lañu lislaam santoon heure bu ñuy jël di maye suñuy doom nañ leen tànnal borom diine borom jukko ak fu mu mën a bokkoo ak nu mu mën a sant ak lu mu mën a doon mu daal di ne ko dama laa bëgg a may kenn ci sama doom yi charte bi nag mooy danga may sàmmal juróom ñetti at soo ca dellee ñaar muy fukk kooku moom sa mbaax la loolee bañ suñeentee ci loolu suñu borom yàlla tëb la nga xam ne mooy diir ba lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne Muusa alayhi salaam sàmm na biir Madiyana fukki at te yonent yi ñoom ñoo gën a rafetal ci ni ñuy jëflante ak i jaam yi def na fa fukki at ca biir misra bàyyi na fa yaay ja bàyyi na fa la nga xam ne nii mooy ay frère am namm na leen ma nga jóg nag jàpp ne léegi naa ñibbi ndax gannaaw fukki at moom njombe ga ma fa defoon mën na am léegi nit ñi fàtte nañ ko te xam ngeen même tey lu bari ci état yi dossier yi nga xam ne daa am fukki at te jugé wuñ ko dañ koy classé kon Moussa ma ngay dëpp jóge Jordanie di ni bisi biir Égypte ma nga ànd it ak soxnaam sa lo loolu it day wane ni góor fu mu dëkk am na droit yóbbu fa soxnaam xanaa lu dul soxna sa moo su ñeente woon ba ñuy fas sëy bi da ko man kat sa dëkk duma fa dem ñu noonu sa dëkk kat duma fa dem loolu bu dul loolu rek góor am na droit fu mu jëm mu yóbbaale fa la nga xam ne moom mooy soxnaam ñépp xam ngeen Ibrahima alayhi salaam fa mu jëlee Sarata ca biir Iraq jaar ak moom Égypte ba indi ko Palestine ak fa mu jëlee Haajara ba yóbbu ko Makka ba ñëwee ba ci yoon bi ci loo xam ne suñu borom nettali na ko ay yoon yu bari ci téeréem bi nee na la seen sawara mu ne njaboot gi toog leen xaar ma fii man ma dem lijjanti ji la nga xamee ni moom laa fa seen te loolu yi tamit mbokk jullit danañu jàngal ni jigéen day heure bu jógee di tukki dafa war a ànd ak góor gu ko aar moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan ñu wax naan lu dagan ci jigéen bu gëm yàlla gëm àllaaxira muy tukki tukki boo xamee ne nii dana fa def lii di vingt quatre heures plein ca àndul ak la nga xam ne moom mooy maxaram koo xam ne suy aram na seen diggante toogu leen ngeen xaar ma mën na am ma jële fi xabaar ndax boobu Moussa réer na ci biir désert bi xamul fu mu jëm mën na am ma fekk fa nit koo xam ne dana ma tegtal yoon bi may mën a jaar ba mën a dem wala it sedd bu tar bii ñu dal danaa fa mën a am lu ñu mën a taalu ba mën faa jaaru loolu it mbokk mu lay won xéewal gi yàlla defal li ëpp ci ñun na am ba tey kaw suuf am na ñoo xam ne bu ñuy tukki dañuy dox waaye li ëpp ci ñun tey mbokk julit heure boo jógee di tukki yaa ngi dugg oto yaa ngi dugg train yaa ngi dugg avion parce que borom yàlla wërsëgal nañ ñu tey sa kër ngay ndékkee ba suur guddi jot nga téléphoné sa waa kër nga leen maa ngi nii jàkkaarloo kaaba ji loolu ku ko waxoon suñuy maam seen téeméeri xel ak juróom-ñetti fukk mënul fexe ba gëm loolu kon loolu la ñu yàlla defal ak yombal ñu war ko cee sant Moussa alayhi salaam bi mu ñëwee ci sawara wi borom bi détaillé ne na nga xam ne noonu la plan ba demee nee na ci xur la xur boobee gis nañu ni benn montagne ma nga ca yor garab gis nañu ni ci côté ndeyjoor ba la fa la ko suñu borom woowe te ji boo duggoon internet bari na ay place yoo xam ne nii xataa juif yi ñu ngay dem di ko ziyaare nee nañ place boobu la suñu borom doon dajeeg Moussa ba xataa garab googee ñu ngi ko fay def ba tey wallahu aalam mi ngi noonu ala kulli xaal suñu borom woowee na ko ca garab ga Moussa di dégg mu ne ko man may sa borom bi wax ak yow gaa yi ne waay waay bu garab taxawee na may yàlla nit na may yàlla ñu koy critiquer loolu mbokk ñooñu di yàlla yàlla loolu la ñuy lay waaye mi ngi noonu jox nañ leen ci misaal yu dul jeex bi ci gën a simple moo de ma nekk ca biir Japon woola sa téléphone allo man la Moodu téléphone bi ci boppam moo naan man la Moodu am déet ndax gars yi dana tax ñu ne téléphone bi mooy Moodu déedéet nga noonu loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon suñu borom yàlla ma nga ca ko arasham bu tedd ba woona Moussa kaddu ga génne ca garab ga ñu ngi noonu kaddu ga génne ca garab ga mu daldi na ko ay Moussa man mi wax ak yow may sa boroom bi boroom bindaafal yépp may yàlla mi boroom bindaafal yépp ca ngir xam ngay nga xam ne may sa boroom sànnil yat bi nga yoru histoire bi bari na fu ko borom bi di nettali fii dañ koo tënk rek wala demee ca taaxa ma nga naan ko loo yor kaza wa kaza sànnil yat bi nga yor Moussa sànni ko loolu it borom xam-xam yi dañ ciy wax ni ndigal bu ñëwee defal rek ndax Muusa ba demee ca tooxa lu nekk sa loxo mu ne ko sama yet la moom lay sukkandikoo moom lay bàccee moom lay waliya ma fii ma ma ma aaribu uxra waaye suñu borom mu ne bàyyil sànnil sànni rek yow it yow jullit heure boo demee ba ñu ne la kat riba daa xaraam pays mi daa xaraam lii ngay def ci sa xeesal bi daa xaraam kaza wa kaza bàyyil ca saasa alqi asa Muusa sànni ko mu nekk jaan Muusa ne waqat daw ndax jaan de jéggi woon na dayoo mi nga noonu jaan ju rëy Muusa daw suñu borom yàlla na ko Muusa dellu si bul ragal xamal ne yaa ngi nekk ci la nga xam ne mooy kóolute donte ne loolu it danañu jàngal mbokk julit gëm dogal teewul a fagaru gëm dogal teewul a fagaru Muusa alayhi salaam ko gëm dogal yàlla la waaye nag ñangoor dina bu xeet nga taxaw ne ne ah bu yàlla dogaloon du ma matt déedéet moom kay da ngay daw ba sa kemtalal kàttan léegi nag li ci des nga bàyyi koog yàlla jàll waala waaye doo taxaw mukk naan li yàlla dogal mooy am fekk yow la nga war a def defoo ko loolee mi ngi noonu Cheikh Ousmane
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يلهى فأرسله معي إلى أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون barakallahu fikum suñu borom mu ne Muusa uslug yadaka fi jaybik tabbalal sa loxo ci sa baatu mbubb taxruju baydaa min xayri suu dana génn weex tàll lu àndul ak benn lor wadmum ilayka janaaxak tafal jëm ci yow sa laaf te mooy sa loxo min arrëhb ci mucc ci tiitaange fa zalika burhanaani min rabbik loolu day nekk na ñaari lay yu jóge ci sa boroom ila firawna wa mala'i nga jëm ca firawna ak la nga xam ne mooy ay notable am innahum kaanu qawman fasiqin ñoom day nekkoon lañ xeet bu génn ak topp qaala rabbi inni qataltu minhum nafsa mu ne ay yàlla man dama reyoon ci ñoom bakkan fa axaafu an yaqtuluun dama ragal su ma demee ñu rey ma wa axi haaruun huwa afsahu minni lisaana sama doomu ndey haaruuna moo ma gën a set moo ma gën a set la nga xam ne ni moom mooy lammiñ ngi noonu moo bu fasaha ci éloquence fa arsilhu ma'ya ridaa e yàlla yónni ko mu ànd ak man doon ku may dimbali di ma jàppale di ma dooleel yusaddiqu nii di ma dëggal ne man ci yow laa jóge inni axaafu an yukazibun ndax man kat ragal naa su dee man rek a dem dañ may weddi qaala sanashuddu aduduka bi axiik mu ne ko daan dëgëral sa përëg mi ngi noonu sa mooy diggante coon ci jëm foqataan te loolu lañ ci jublu rek mooy sa kattan bi axiika ci sa doomi ndey ji wa najalu lakuma sultaana daan def ñeel leen lii di lay yu leer fala yasiluuna ilaykuma ñoom day duñu mën a yëgsi ci yéen muy firaw naa ko notablam بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون bu ngeen àndeeg samay aaya day yéen ak ñi ànd ak yéen yéene doon ñay not mi ngi noonu mbokk Muusa alayhi salaam borom bi woo na ko mu daal di dellu si fii suñu borom tëb na étape waaye boo demoon ci beneen étape daf naan ko xuzha wala taxaf sa jaan bii attaqué ko rek nga jàpp ko sunu sunu iduha sirataha al ula daañ ko delloo mu mel nem meloon Moussa takk fit bi rek riir jàpp jaan ji jàpp jaan ji ne kat yat te loolu it mi ngi noonu sa borom yàlla lim la sant defal rek lu ñàkk-ñàkk dugg sa xel ndigalu yàlla defal rek mujj ga toujours day baax kon benn lay ngoog ñaareel bi mu ne ko Moussa jëlal sa loxo dugal sa baatu mbubu Moussa dafa nekkoon koo xam ni dafa jege woon ñuul xaw a xeereer noonu mais xeesul woon comme mbokki juif yi ni ñu xeese mu ne boo ko defee boo génnee sa loxo loxo bi dana weex tàll te du àndul ak lor te bokk na luy weexal loxo mooy ak ngaana yàlla na yàlla musal ñu ci mu ne ko nag dana weex te du ànd ak lor loolu muy ñaari preuve mu ne ko it heure boo tiitee jëlal sa loxo teg sa dënn mi ngi noonu jëlal sa loxo nga teg sa dënn mi na rëhb te loolu it expérience la boo xam ni nit ki bu tiitee jël loxoom teg ci dënnam loolu day wàññi tiitaangeem am na nag boo demee ci téere ban Israël yi dañ ni Firawna heure bu mosaan jàkkaarloo ak Muusa bu Muusa jëlee loxoom teg ci dënnam Firawna day tiit ba fokk mu yàqutu ba yow yaa ngi dégg ndax rawatina it gaa yi waxoon nañ ne ko kii moo lay rey gis ngeen kon loolu la ko suñu borom yàlla wax te mooy it entraînement doomu aadama bala ñu koo yónni waras na koo entraîné moo tax suñu borom entraîné Moussa ba mu gis jat bi lim man gis loxo bi lim man mu ne ko nag preuve yi ci yàlla la jógee te du sa kattan ci yàlla la jógee yóbbul dem ci Firawna ak i notable am ndax ñoom kat génn nañu ak topp te loolu it mbokk daf ñuy jàngal ni suñu borom yàlla ci mbaaxam du alak mukk doomu aadama te yónneewu ko ay layu leer Firawna li muy bon bon bon bokk na ñi gën a bon ñi teg seen tànk ci kaw suuf muy Firawna waaye demal yeneen aaya suñu borom mu ne fa quulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha Moussa su ngeen demee wax leen ko wax ju nooy ngir mu xalaat ba sellal boppam loolu it mi ngi noonu borom mu ne wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula duñu alak nit ki mukk lu dul ñu yónni yonent d'abord heure bu nangulee yonent bi rek yàlla bal ko mu ne ay yàlla man ba ma fay jógee damaa reyoon nit li ma yéene woon koy su ma demee damay làqatu rek sab ruq waaye xalaatuma jàkkaarloog firawna ragal naa su may dem rek ñu rey ma te gaa yi lii rek moo fi mën a génn rey nit li fi mën a génn rey nit mooy ku rey nit ca tey ko ñu rey la waaye mbokk li nga xam ne suñu loi yi moom la ñuy def jëlee ko ci tubaab bi waa ji dem rey juróomi nit bu ko neexee sax na ko def quinze lan mooy payam jël ko yóbbu ko camp pénal boole ko ñu sàcc ganaar ak ñu sàcc barada ak kaas jeex na terrain football baa nga ne salle de jeu baa nga ne li boo bëggee julli julli gaa nga ne parcours sport baa ngi nii ndekki dina ñëw añ dina ñëw reer dina ñëw neex nag neexul ndax gaa yi lii xel mën na ko nangu li xel mën a nangu mooy ki rey nit nañ ko rey moo tax Moussa dama ragal ñu rey ma mais bu doon tene ne kii dem di rey nit ragal na ne suñ ma jàppee dañ may rey mbokk kon rey nit ki dana wàññeeku wala ñu bàyyi ci xel bu baax loolu kon mu ne ko nag ay sama borom sama doomi day Haroun moo ma dàq wax moo ma gën a leer làmmiñ ndax Moussa làmmiñ ba dafa dëroon fa dëroon la tax am na wax yu bëri yuñ ca wax bani Israil Firawna moo ko doon nattu ndax Moussa da ko jeexaloon xale bu mel ni mosuma ko gis mu ne jabar ji kii dama koy rey mu ne ko waaye kii xale la rek mu ne ko kii du xale ordinaire nee na mu ne ko kii xale la rek nee na jël benn Firawna jël benn tàndarma ak benn xal teg ko ne ko kaay kaay jël mu ñëw rek Moussa dem ba jël tàndarma bi yàlla wëlbati xol bi mu jël xal bi rek sax ko ñu ne loolu moo def loolu làmmiñam amuñu ci li ñu leer waaye li wóor mooy làmmiñ bi moom leerul woon moo tax beneen aaya mi ngi naan suñu borom waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli yàlla yàlla na nga fecc benn pas-pas sama làmmiñ bañ mën ma comprendre sama frère Aruna nag moom macha allah ku leer làmmiñ la yónni ko mu nekk di ma dimbali ndax ragal naa bu dee man rek dem dañ may wetti waaye mën naa bu ci Haruna ba kay ñu gëm ma gis ngeen suñ borom na ko wax baax na danaa la doole la sa frère danaa la jox sultaan muy ay preuve ay lay yu leer nañ te it na sa xel dal firawna ak i notable am bu ñu dal seen kaw mukk dara lañ leen mënalul te it yaag sa peuple yaag sa xeet fii ak yéen a ngi nangoo sukkandikoo samay aaya yéenay not te it mbokk loolu la yàlla dégg xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi mu ne wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin su doonte ne gëm ngeen yéenay féete kaw looloo tax ba yàlla na yërëm suñu magi islam yi bokk na ci ko mel ne Cheikh Nasiruddin Albani rahimahullah mu ne jihaad jihaad du dagg waaye lan mooy jihaad lan mooy dëgg-dëgg quwa lan mooy kattan bi jëkk boo ko kattan bi jëkk ci jihaad mooy ngëm yàlla bu sell looloo tax jullit ñi tey suñu jihaad mooy lan nañu fexe ba xuraafaat yi ñuy dégg commencé Sénégal na ngay commencé booy dem fooy jëm ci àddina bi Sénégal ngay commencé bokkaale bi xuraafaat yi place yàlla bi ñuy jële ko fa teg fa keneen lu nekk lu yàlla yeye woon jox ko keneen mbokk lii nan lay mën a amee ba fa la ñu naan dañuy not yéeféer yi déedéet balaa islaam jëm kaw fokk jurit ñi dañuy delluwaat gëmaat la ñu war a gëm moo tax suñu borom ne Muusa alayhi salaam bi ayatina ànd ak samay aaya antuma wa man ittabaakum alxaalibuun yaa ku mën a ànd ak yéen yéenay not yal na yàlla delloo ñu ci ay aaya mi ngi noonu
فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا سحر مبتع وما سمعنا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأرسلني فأوقدني يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون
barakallahu fiikum suñu borom mu ne falamma jaa'ahum Muusa bi ayatina ba leen Muusa dikkalee ci suñuy aaya bi ayatina bayyinaat ci suñuy aaya yu leer ya qaalu ma haada illa sixrun muftara ñu ne lii day du dara lu dul njabar gu ñu duural rek wa ma samicna bi haada fi aabaina al awalin ñun day dégguñu musuñu dégg ci lu mel nii ci suñu bàyyi yu jëkk ya وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي موسى نسنيب سما برم يالا دي moo gën a xam ci ki dikke ak njub ga bawoo ci moom wa man takunu lahu aqibatu daar ak kan lay ñeel mujjeelu kër ga innahu la yuflihu zalimun li am daal mooy du texe mukk tooñkat ya wa qaala firawn ya ayuha almala firawn ne yéen ay yéen notaabal yi maa alimtu lakum min ilahin gayri xamaluma leen benn yàlla bu ñu war a jaamu bu dul man fa awqid lii yaa haamaanu ala tiil taalal ma yow haamaan ci ban bii ay taal ko defar ci ay birig wajal lii sarxa nga defaral ma am taax mu kawe laalli attaliu ila ilahi muusa ngiree ma mën a yiirndu kaw asamaan ba xam danaa gis yàllay muusa wa inni la azunnuhu min alkaadibin doonte ne jortaan jort naa na ci fenkat yi rek la bokk wastakbara huwa wa junuuduhu min fi l ard mu rëy rëylu moog armeem ya ci kaw suuf bi gayri lxaq ci lu ñu tegul ci benn dëgg wa zannu annahum ilayna la yurjaun ñu joort ne ñoom kat kenn du leen delloosi ci ñun mi ngi noonu mbokk yonent ci yàlla Muusa jóge na ca borom ba fa borom ba dana wax ak moom suñu borom tëb na ay étape yëgsi na ca palais firawn ak i notable am wax na ak firawna firawna dagg sante fa ak moom ba ca fin ba mu ne ko waaw lan mooy sa lay fekk Moussa ne ko waaw su dee dama indi preuve bu leer mu ne ko indi ko bu dee wax nga dëgg mu daal di sànni yatam ba mu nekk jaan ju biir génne loxoom ba loolu bi mu amee firawna ak i notable am ne hee kii day ak njabar la jàngi woon lii du dara lu dul njabar te wax jii muy wax ne yàlla kenn la alaxira am na musuñu koo dégg suñu bàyyee di ko wax yonent yàlla Muusa loolu la ko firawna tontu te loolu it mbokk yi dañ naan diine bàyyi yàlla na baax waaye mbokk yow mi am xel ngalla waay sa borom bu ko jaamoo ne lii laa fekkoon sama baay abadan yooyu mi am xel xalaatal li nga xam ne fekk nga ko ci sa baay kër gum mën a bokk mbooloo mu mën a bokk na nga gëstu xool ndax lii sama baay nekk lii ak njub la ndax amul lu ko gën a jub su dee gëstu nga ba xam ne sa baay day mi ngi tegoon tànk ci alxuraan ak sunna téyel bu baax la sa baay nekkoon topp ca waaye bu dee ne gis nga ne sa baay day la nga xam ne moom la yeneen ci yàlla ba jàngaloon sahaaba mi ñu ko doon dund ak li nga gis sa baay di ko dund daa safaanoo ngal la waay ñaanalal sa baay te yow dem topp la nga xam ne muy sunna amma mboolem xeet yi alko la leen alak mooy lii fekk ñu ci woon suñuy baay Muusa alayhi salaam na leen suñu borom yàlla day moo gën a xam kuy indi njub gu bawoo ci moom te it mbokk xamal ni njub ci yàlla lay jóge mbokk jaamu yàlla kenn du ko xalaat jaamu yàlla ay tegtal la te day doon tegtal yu leer ñi yàlla na toon ñi seetaan rajo yeeg télévision yi xam nañ ne suñu bisub tey bii di àllarbay kare lu ne dégg ngeen ko ci façon ñaan gu nekk façon julli gu nekk ñu ne mboolem catastrophe yi ci at mi ci ci lay wàcc lu nañu wax ko ci waaye mbokk loolu lépp xam leen ni ay doomu aadama ñoo ko xalaat di ko wax waaye du ne daa jóge ci alquranul karim wala mu jóge ci doxaliinu yonent bi ak i sahabaam ñu ragal àllarbay kare wala yonent bi daan jiite sahaaba yi ci julligum daan jullig ñoom ci àllarbay kare wala yonent bi tere leen sangoog fóot ak tukkeeg ila axiri yooyu yépp mbokk ay xalaat la kon huda min indi huda ci yàlla rek lay jóge yàlla kam waxal mooy ab yonentam yonent bi kam jàngal mooy ay sahabaam lépp loo xame ni nii dañ koy tudd diini ca abubakar ak omar ak usmaan ak ali nekkuñu ca woon mbokk loolu du diine abadan diine mooy lañu sahaaba yi nekkoon borom boobu subhanahu wa taala ne it kan muy mujjee la nga xam ne mooy kër gi te mooy suufa si yàlla si loole yàlla moom xam na ko ca la shakk ne wal aqibatu lil muttaqin ña ragal yàlla ñoom ñoo koy mujjee li am daal mooy tooñkat du texe innahu la yuflihu zalimun ca mbokk tooñkat ngoogu du texe tooñ bi gën a rëy mooy tooñ sa boroom ci bokkaale ko inna shirka la zulmun azim waaye ngal la waay moytul tooñ say waajur moytul tooñ sa soxna sa borom kër sa dëkkandoo moytul tooñ ña ngay liggéeyal moytul tooñ ña ngay liggéey ña nga xam ne ñoo lay liggéeyal ñoo lay liggéeyal moytul tooñ dëkkandoo moytul tooñ xatta yéeféer xatta yéeféer moytul tooñ suñu borom nee na laa yuflihu zalimun tooñkat du texe même bu doon tane ne jaamu na yàlla yonent bi alei salaam nee na am na tooñkat yoo xamee ne nii seeni julli seeni koor seen lépp dana mat yowmal qiyaama waaye tooñ ñu doon tooñ jaamu yàlla yi mooy tax ñu texee di tabbi sawara yal na yàlla musal ñu ca laa yuflihu zalimun borom bi nag ni firawna bi mu demee ba gis ne kat lenn ci nit ñi ñi nga am sikki sàkk ci mbiru Muusa ca la def benn discours am bu mag discours ba mooy lan mooy eey yéen waa réew mi xam leen ne xawma benn yàlla bu ñu war a jaamu bu dul man gaa yi maye ñu ne bi ko Iblis déggee daa taf nopp yi ne ah lii nag bu mu ëpp na moom yaa ngi dégg mu ngi loolu ala kulli xaal xawma benn yàlla bu ñu war a jaamu bu dul man loolu muy benn léegi pour distraire nit ñi ah fexe ba caa ay caaxaana mun na bokk mun a xaamaan créer ma waaye benn gratte-ciel mooy benn immeuble boo xam ni dana dem ba laal asamaan mu xool asamaan ba xam yàlla Moussa ji muy wax ndax mi ngi foofam déet bon ak lu mu bon bon lu mu saay saay saay saay moom yëgoon ne ne Moussa nee na ko yàllaa ngi ci kaw asamaan yi te mbokk jullit loolu la xeli doomu aadama yi daje jullit yéeféer demal biir siin biir Casamance ñi nga xam ne duñu jullit duñu chrétien laaj leen ana yàlla ci kaw asamaan bi lañ lay wax am déet ñëpp dëpp nañ yàlla ci kaw asamaan bi ba baa nag yàlla di doog a génne ay mbooloo yoo xam ne xalaat ya ma nga cosaanoo woon ci indu ya ñu ñëw ñu ne yàlla mooy lépp yàlla mi ngi fépp déedéet mbokk jullit yàlla ma nga ca kaw arsham ba dara nekkul ca moom nekkul dara ci ay jaama mi ngi noonu jalla waala Haamaan defaral ma loolu donte ne ne loolu mbokk waxoon na ko pour distraire peuple bi waaye Égypte ak bu dul Égypte sax xelu doomu aadama lool dof dof dof xam nga ne ni munoo tabax taax moo xam ni day dem ba ko asamaan munta nekk mi ngi noonu waaye nag réussir na ci borom bi wax nañu feneen ne fastaxaffa qawmuhu fataawuhu ah daf loo na xeetam distraire na leen ba ñoom ñu topp ko ca loolu borom bi nee na noonu la rëy rëy loo ci kaw suuf te mbokk rëy mooy naka yonent bi waxee batrul xaq wa xamtu naas bañ dëgg rëy goo xam ne tegu ko ci dëgg ñoom nag dañoo jàppoon ne kenn du leen delloo ca yàlla te loolu mbokk mooy différence bu rëy ci diggante doomu aadama yi mooy ñi gëm ne dañ leen mas a delloo taxawal leen seen kanamu borom mu àtte leen ak ñi gëmut loolu amma yow julit da ngay gëm ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun yàlla ñu moom ci yàlla la ñuy dellu looloo tax ba dañ ne aaye bi mujj wàcc ci téeréb yàlla bi mooy ragal bis boobu wattaqu yawman turja'una fihi ila allah ragal leen bis bi nga xam ne dañ leen di delloo ci yàlla mooy malaaka yi ñëw nañ jël sa ruux di la delloo ci yàlla ilayhi yurjaun borom boobu subhanahu wa taala kon loolu la wax ci kàccoor bu bon boobee nga xamee ne nii léegi mu wax ñu fu mu mujjeeg moom mi ngi noonu Cheikh Ousmane
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأكثرناهم في
jazakumullahu xayra suñu borom mu ni fa axaznaahu wa junuudahu noonu lañ ko jàppee muy firawna ak notabalam ya muy armem ba fa nabasnaahum fil yam ñu sànni leen ca duusi géej ya fanzur kayfa kaana aqibatu zalimin xoolal naka la nekkee mujj tooñkat ya wa ja'alnaahum a'immatan yad'uuna ila an-naar nii lañ leen defe ay njiit yuy woote jëme sawara wa yawma al-qiyaamati laa yunsaruun te yawma al-qiyaama kenn du leen dimbali wa atba'naahum fi haadihi ad-dunya la'na noonu lañ leen tofale ci ñoom ci dundug àdduna gi ak rëbb wa yawma al-qiyaamati hum min al-maqbuuhiin te yowmal qiyaama it dañ daq dañ dañ bokk ci nit ñi dàq ci yërmande yàlla ñu ngi noonu qabbaha allahu fulaan mooy soril na ko yërmandeem wa laqad aatayna muusa alkitaab joxoon nañu muusa téere ba muy tawraat min baadi ma ahlakna alquruuna al ula gannaaw ba ñu alagee maas yu jiitu ya basaa'ira linnaas mu nekk lay yu leer nañ wa hudan wa rahma nekk njub ak yërmande laallahum yatazakkaruun ngir ñoom ñu nekk ñuy fàttaliku mi ngi noonu mbokk firawna ngi nii mbëru na nee na moom mooy yàlla bi ñu war a jaamu fetteerlu na ci bani israil façon mbugal bu ne teg na ko ci ñoom suñu borom yàlla ci li ngeen yàgg dégg jox na Muusa ndigal na ko na génne bani israil ñu dem ca géej ga wala ci côté canal du Suez ngiree traversé mer rouge bi ngiree dugg la nga xam ne mooy désert Sina Firawna topp leen biñ ñëwee ba ci géej gi suñu borom ne Moussa dóoral yat bi ci géej gi mu dóor ko géej gi daal di jóg def fukki montagne ak ñaar bàyyi ci suuf fukki yoon ak ñaar yoo xam ne daa woo koŋ Moussa dugg ak bani Israil ba jeex ngir traversé Firawna ak ay armem ñëw ñoom it daal di dugg ci biir géej gi toppi leen suñu borom yàlla génne bani Israil bañ jeex ne Moussa dóoraatal Moussa dóoraat géej gi vague yi daal di ñëw ci kaw Firawna suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na jàpp nañ ko moog armem ñoom ñëpp sànni leen ci douche ya xoola ni mu nekkee mu jug tooñkat te loolu it mbokk firaw naa ngi nii yoroon nguur goo xam ne néew na ku ko yor ci kaw suuf alal suñu borom mu ne ñaata lañ bàyyi ci ay jardin ci ay trésor ci ay maqaamil karim ila axiri waaye xoolal ni mujjee loolu it xoolal tooñkat mbokk amul kenn ku nekk ci dëkk nekk tooñkat ba tooñam nga siiw lu dul yàlla dana ko toroxal ba lay dee looloo tax nañ moytu tooñ suñu kéemtalal kattan borom boobu nee na nii lañ leen defee nag ay njiit ñuy woote jëme sawara te mbokk firawna ngi noonu bokkoon ci ñi nga xam ne bi ñuy dund ñi nga woote jëme sawara te mooy di génn nit ñi ci yoonug yàlla te loolu mbokk fan yi yàlla nattoo nañu ki nga xam ne mooy président Macron bu France fan yi bokk na lu mu def discours wani ni lii nga xam ne nii moom mooy islam dafa nekk ci crise ŋàññi l'islam ne ñoom daañ créer islam de France danaa ci def tant de millions ci euro bis nekk tey nangootuñu benn xalaat buy jóge bitim réew di ñëw fii ñun ñooy créer suñu imam ñun ñooy def nangam mbokk lu ne mu wax ko waaye wallahi mbokk bu ñu budul woon a guddal tafsir bi France bokk bokk na pays yi gën a jaxasoo ci wàllu jukko ci biir kaw kaw àdduna gën a bon jaxasoo ci wàllu jukko ci biir àdduna bu dee rek am na moral bu mu doon wax war na ko commencé foofu commencé moom ci boppam ak foyem doog a jàll feneen bañ a nekk di critiquer l'islam waaye nag Macron ku dul Macron da ngeen di sonn rek suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne yuriduuna li yutfiu nuura allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuurihi walaw kariha alkafirun bëgg nañoo fay leer gi yàlla gi yàlla di yëkkati leeram jamono bi mu def fii discours am boobu la yàlla dogal prisonnier bi mujjoon ba France am ci extérieur ñu koy wax Sofia Petrona ñu ngi ko jàppoon ci Mali ñu libéré ko bi ñu koy libéré mu nekk dernier un prisonnier France Macron moo dem ay reporteru ko ànd ak discours am bu mu nar a def bim ñëwee dajeeg soxna si soxna si am na soixante onze ans xaw ma soixante quinze ans mu ñëw dajeeg moom ne ko Sophia mu ne ko non non non Mariama laa tudd léegi dugg naa ci l'islam diine rek mooy l'islam yaa ngi dégg loolu mbokk télévision adduna bi yépp di ko seetaan daa rus daa torox ba discours am ba mu yoroon mujj ko discours loolu kon monsieur ah ah xijaab mi ngi noonu xijaab boole ci xijaab li Macron gën a bañ moo taalibe Macron comme na ko firaw na bañ a woon ñëw ànd ak xijaabam ne doomu Sophia Mariama la jullit la diina benn moo am muy l'islam mi ngi noonu mbokk kon muy loolu loolu ndax mën na nekk hasard mbokk yàlla mooy tontu Macron mooy Macron tëjal sa gémmiñ sama diine ji danaa ko yëkkati te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na àdduna du tukki mukk lu dul islam dana tasaaroo dana dugg ci dëkk bu mu mën a doon na doon kërug tabax la kërug sakket la kërug ku mu mën a doon dugg fa ci teral ka tedd ak toroxal ko torox bala àdduna tukki Macron mënu ci dara Poutine mënu ci dara Sarkozy mënu ci dara kenn kenn mënu ci dara loole ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee yéen ndaw jullit yi gëm leen loolu bu leen kenn yëngal ci seen ngëm bu leen nekk des extrémistes waaye nekk leen ñuy topp seen borom bu leen kenn changé lu seen diine waxuñu leen ngeen sos waaye li yàlla digle loolu rek mooy ak maandute li yonent yàlla digle mooy rek mooy ay maandute te mooy bul tooñ kenn bul jalgati kenn waaye nag gëmal yàlla bu ko bokkaalee loo mën ci lu baax nga def ko ci jaami yàlla yi mbokk l'islam li la woote jëm mi ngi noonu ñu bàyyi ci xel bu baax ala kulli xaal suñu borom nee ni nii lañ nekk njiit yi wootee jëme sawara amma yow julit yow ndawal julit yaa ngi bokk min al a'immati alladhina yahduuna bi amri bi amri allahi ila al janna julit bu nekk li muy ñaan yàlla mooy waj'alna lil muttaqina imama yàlla yàlla nag ma def ma nekk royukaayu ku ragal yàlla bëgg a mel ne man lu tax mooy nekk njiit ci baax njiit ci yërëmaate njiit ci woote ci njub njiite ci bàyyi lu bon njiite ci lu mu mën a doon jullit fu mu mën a toll dafay bëgg mbooloo mu mu nekk génération bu mu nekk mu bokk te ñi ko gën a baax ba ñu rëy ci moom waja'alna lil muttaqina imama borom boobu subhanahu wa taala nag ne ñoom day yawmal qiyaama kenn du leen dimbali daañu sax sawara xaalidina fiha abada borom bi mu ne rëbb naa leen ci àdduna looloo tax ba ba àdduna yi tukki rëbbum yàlla mi nga ànd ak firawna te yowmal qiyaama dañ bokk ñi sorol yërmandeem mbokk kooku mooy ki yàlla mujj alak ci kaw suuf mi firawn moo tax borom bi nag nee na ca la wàccee tawraat jox ko muusa léegi nag yàlla dafa sant jullit ñi ñu jihaad amma xeet yi jëkk ya commencé ci xawmu nuux aad samud luut shuaybu ila axiri ñoo ñëpp qurunul ula suñu borom alak na leen ci kattanam bi tawraat ñëwee nag mu ne Muusa jihaad leen ma jàppale leen mi ngi noonu tawraat doon lay yu leer nañ doon njub doon yërmaande ngir doomu aadama yi di ca mën a sukkandiku di fàttaliku mbokk tawraat ñëwoon na nekk njub njub goo xam ne njubug yërmaande la la nga xam ne mooy tiim tawraat gën a màgg tawraat muhayminan alayhi mooy alquranul karim mbokk alquran yi ngi nii moo ñëw ngir jullit ñi topp ko gëm ko jëfe ko loolee jural leen yërmande yi àdduna ak yërmande yi alaxira yal na yàlla boolu ñu ca boolu ca bépp jullit yal nañu yàlla delloo ci téeréem bi gën daa rafete delloo wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ndax su dee ne dama toog ci jàkka ji gannaaw fajar di def zikrullah ba jant bi kawe ma julli ñaari rakka ndax day bokk ci julli yoor yoor na am foofu la yoor yoor commencé julli yoor yoor mi ngi commencé fi jant bi jóge ba dox la nga xam ni ni mooy tolloog ab xeej borom xam-xam yi di ko tënk ci à peine ay douze minutes mi ngi noonu su ko defee loolu bu dee am na yoor yoor fa la commencé ndax su dee dañoo ñëw ci jàkka ji ñu julli imam julli ba pare ñun ñuy mbooloo ndax am nañ droit def benn mbooloo loolu dafa am ixtilaaf ci borom xam-xam yi bu doon lu mel ne mazhab malik ñoom dañ naan déedéet ku ne day julli sa julli bopp donte ne ne bu dee ne fitna amul ca jàkka ja loolee yéen tayu leen ko jubluwu leen ko dañuy ne tarde rek bañ koo defe it melokaan ba ko jàkka jay defee ca mooy taxaw ca fa imam bay taxaw waaye da ngeen nekk à côté julli mbooloo loolu incha allah duñu doon lu ko bañ amma nag bu dee ne jàkk yi am fitna waliyaas billah nga xam ne dañoo contre imam ba loole moom buñ defee beneen mbooloo du baax ca loolu day am mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam naam ndax jullit am na droit di rëbb koo xamee ni nii ab jullit la ab ab yéeféer la bu dee dafay dund loole jullit du rëbb ab yéeféer lu dul yéeféer boo xam ne dafa feeñal noonam ak lislaam yonent bi alei islam daana xunuut di rëbb ay giir ci arab yoo xam ne dañ piégeoon ay ñenn ci ay xura ay jàng jàngalekat alquran yu ñu waxoon ñu indil leen ñu piège leen rey leen rey bu ñaaw yonent bi nekkoon na pendant un mois di xunut di leen rëbb loolu mooy yéeféer bu noonoo ak lislaam amma bu dee yéeféer bu noonuwul ak lislaam suñu borom yàlla nee na terewuma leen ngeen laayi leen biir gannaaw ba it bu dee ndax sawara ñi yéeféer yi dee ak ñuy dund yépp duñu dogg ci kenn ne sawara la jëm lu dul koo xamee ni nii yeneen ci bàyyi salaam tudd na ni sawara la jëm amma keneen ku dul moom dañuy jort ne sawara la jëm képp ko deeyaale kéeféer masalan am nga droit ni ku deeyaale kéeféer mboole seen sawara lañ jëm waaye nag doo ne diw sawara la jëm mi ngi noonu ndax yàlla moo xam lan la deeyaale loolu la ñuy wax ci aljanna jullit ñépp aljanna lañ jëm waaye uma droit ne taxaw ci mbooloo ni Ousmane ña ngi di àjjana la jëm yàlla na yàlla defal ko àjjana defal ñu ko gépp jullit waaye nag uma droit di wax loolu ñañu am droit mooy ñu yonent bi tuddoon àjjana wala sawara keneen ku dul kooku nag moom dañuy rafet njort ci moom rawatina nag ñi nga xam ne umma bi dañoo dëppoo ci ñoom masalan ku mel ni comme ni ki mi taymi rahmahullah di waxee ku mel ne ay imaamu Malik imaamu Shafi ku mel ne ay ñoom Bukhari ku mel ne ñooñu nga xam ne umma bi dëppoo nañ ci ne ñii li ñu liggéeyal lislaam daal rafet nañ jot rafet nañ jot ci mu ñoom waaye ba tey it cosaan ba daal mooy du ñu dogg ci kenn ne àjjana la jëm lu dul ko yonent bi tudd ne àjjana la jëm yal na yàlla boole ñu ci wa àjjana naam naam waaleykum salaam wa rahmatullah waaleykum salaam ah waaw loolu moom bokk ab conférence la comme nag am nañu day dars dimanche yi jëm ci wàllu fiq loolu moom ni ñuy dalali seen loolu xutba la ak ak conférence bisimilah waaw waaw bisimilah waaw mu ne waaw waaw ala kulli xaal ngir bañ a neenal mbokk bi rek liñ ciy wax yonent bi alayhi salaam daan nañu wax ne kenn ci yéen bu dee ab suytam da ko fekk si na jël loxoom teg ci déyam ne yàlla maa ngi lay ñaan yiwam ak yiw wi nga ko bindee di la ñaan nga musal ma ci ayam ak ay bi nga ko bindee loolee da ngay gis ne bokk na ci li gën a am solo lu ñuy dajale ab suyt ci des nag moom ay conférence la am na yuñ ca def am na yu ci yeneen mbokk def mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waa ji dafa ñëw ci ñun fii wax fii waxi yéeféer dem daa di faat ala kulli xaal mbokk dañ naan du képp ku tabbi ci yéeféer rek yéeféer tabbi na ci moom ki nga xam ne dafa wax waxi yéeféer bala ñu ko condamné fokk ñu toog ak moom teg ci moom li ñuy tudde alxujja leeral ko bu baax ne ko wax jii ngay wax day waxi kéeféer la indil ko ci ay lay yu leer su boobaa la ñuy doog a dogu ci moom ki nga xam ne nag dafa mujjee la nga xam ne mooy ak kéeféer gannaaw ba ñu ko leeralee alxujja mu sax fi mu sax ku mel ne noonu mën ngaa maandu ci ay mbiram jarul nga di ko ñaanal amma nag ki nga xamee ni nii moom da nga koo dégg rek moo wax wax yéeféer ci ak bari suñu rajo ak télévision yi ca amul benn xujja boo xam ne xam nga ndax teg nañ ko ci moomum déet ca cosaanam mooy dina julit la bu dee mënees na koo ñaanal bàyyi ko ak boroomam ndax borom xam-xam yi dañ naan nga juum ci téeméeri yéeféer boole leen ci lislaam moo gën nga juum ci benn julit nga génne ko ci lislaam ba ma da xam ngeen li ma wax mi nga noonu nga juum téeméeri yéeféer nga jàpp ne julit lañu ba ñaanal leen boole leen ci lislaam moo gën benn julit nga génne ko ci lislaam ca fekk ne moom ab julit la mi ngi noonu mbokk julit wallahu aalam waa waa xam naa mbokk yi baax na bisimilah baaw ñu la waaw waaw waaleykum salaam wala kulli xaal dëkk bi ma nekk ñoom benn jabar rek la ñu reconnaître ndax ki nga xam ne dafa takk beneen soxna nga xam ni doom yi mu am état bi moom du reconnaître ne doomi soxna la ndax loolu yi nuñ koy considéré du ñu nekk ay doomi njaaloo gi dema noon déedéet mbokk julit état boobu loolu mu def waru ko def suñu borom yàlla moo ne ay jaamam takk leen bu ngeen mënee ñaar ñetti ñeent état amul droit ne ci benn ngeen di yem kon kay yow ba nga demee takk am ñaareel takk ko ci sharia ay waajuram ñoo la ko may sëy la bu dagan doom ya nga ca am doomi lislaam la doonte ne ne état bi ci boppam mu reconnaître leen ne doomi sëy lañu waaye aha kay doomi sëy lañu mi ngi noonu loolee moom dara nekkul ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam ngeen baal moom mujj ci mbokk bi doon yëkkati rek waaw bismillah waaw waxal waxaatal ma dégg waaw ñii nekk diggante àjjana ak sawara mooy wàllu araf fa ñuy mujje mooy aljanna suñu borom dana leen fa bàyyi ab diir nattu leen waa àjjanaa nga ne di noos waa sawara nga ne ñu ñuy mbugal ñoom ñu ngi ci diggante bi bu ñu xoolee waa àjjana félicité leen xool waa sawara rëbb leen ala kulli xaal ca gàttal suñu borom yàlla subhanahu wa taala bokk na fam leen di yërëmi fa ñuy dagg santeeg waa sawara nañ leen gaa yu baax yee ngeen doon jàpp ne ñii duñu duñu texe xeeboon leen gis ngeen nangam nangam suñu borom ne leen udxulul jannata dem leen tabbi aljanna kon ajjana mbokk ak sawara dong nga am yowmal qiyaama araaf ab étape la rek bu ñuy jaar yàlla bi muy atte ay jaamam waaye à la fin ñaar rek mooy am ajjana sawara waxuma sax laaraaf waaye même biir sawara suñu borom dana fa génnee ay jaam yoo bare bare bari ci ndigal gi mu jox ay yonentam ak ay gaay yu baax ay malaakaam ba moom ci boppam dana fa génnee ña ko soob ñu jël leen sawara yóbbu leen aljanna atte ba jeex ñu doog a tëj buntu sawara ya tëj buntu àjjana ya mi ngi noonu kenn dootu génnati yal na yàlla boole ñu ca boolam àjjana musal ñu ci mbëgalu àdduna musal mbëgalu alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain am xam naa mbokk bi mi ngi fàttali rek 1000 francs yi ngeen di barkeeloo incha allah